الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد mbokk jullit ñi ñoo ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dolli ko wa waame xéewél mokk ku leen topp ba bis penc mbokk jullit ñi bu loolu jàllee ñoo ngi dénk suñu bopp di leen denk ñu ragal yàlla tabaraka wa ragal yàlla mi nga xam ne mooy ndénkaane suñu boroom ci ñi fi jiitu woon waaye mooy ndénkaanem ci xeeti yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله mbokk jullit ñi suñu xutba tey dafay tënku ci li ñuy tuddee xaddul basar mooy damm sa gis war gi mu war ak njariñ yi ci nekk ak salafu saalix nan lañ doon dundee li nga xamante ni moom mooy sàjj sa gis wala damm sa gis xam ngeen ne bu ñu delloo ci suratu nuur suñu borom tabaraka wa taala ci aaya fanweer ba fanweer ak benn suñu borom moo ngi fa indi aaya bu gudd di wax julit ñu góor ñi ak julit ñu jigéen ñi nañu damm seeni gis suñu borom yàlla tabaraka wa taala nee na yow yenent bi alayhi salaatu wassalaam waxal jullit ñi góor ñi ne leen yaxuddu min absaarihim nañuy damm seeni gis nañuy wat seeni gis ba bu ñu ci xool jëm ci jigéen ñoo xamante ni daganul leen ñu leen di xool waaye itam nañuy wat seeni pëy seeni awra nañu ko ñoŋeel ci di ci def li nga xamante ni moom mooy njaaloo wala lu mel ni liwaat muy ngóor jigéen ak yeneen yu demee noonu suñu borom nee na loolu bu ngeen ko defee day dalika adka lahum mooy li gën a sell ñeel leen mooy li gën a sell ñeel seen bakkan ci def mbir yi nga xamante ni yàlla da koo waral ci yéen ak yi ñu sopp mu waxaat ne waxal jullit ñu jigéen ñi ñoom itam nañuy damm seeni gis ba bu ñu ci xool lu ñu warta xool bu ñu ci xool lu leen yàlla xaraamal ñu xool ko waaye itam bu ñu feeñal seen taar illa ma zahara minha lu dul la ca feeñ lu mel ni ñaari tenq ak karkanam ak yére ya nga xamante ni moom lañuy ñuy sol suñu boroom nag ne digal leen nañuy muur li nga xamante ni moom mooy seen yaram ñoom jigéen ñi wal na bi xumurihinna ala juyubihin nañu jël ay muuraay yoo xam ne dañu koy teg ci seen bopp yi mu daal di wàcc ci li nga xamante ni moom mooy ci seen dënn yi bu leen feeñal seeni taar lu dul ci ñi nga xamante ni ñooy seeni boroom kër wala seeni jigéen walla jaam yi nga xamante ni yéen leen moom wala sax ñi nga xamante ni dañoo nekk ci kër yi ñu leen di tuddee ulil ba nga xamante ni ñoom amuñu soxla ci jigéen waaye lu dul loolu suñu borom nee na yéen jigéen ñi bu leen feeñal li nga xamante ni moom mooy seen taar mbokk jullit ñi damm sa xef muy sàjj sa xef wala damm say gis ba doo ci xool loo war a loo warta xool suñu borom yàlla tabaraka wa taala daf koo waral ci ñun kon lu war la comme ni mu ñëwee ci aaya bi ñu jàng sànq xul lil muminina yaxuddu min absaarihim ba aaya bi jeex moo tax al imaam ibnu kathir boo demee ci tafsiram bi muy tafsir aaya bi dafa wax ne amr amrun min allah lii day ndigal la lu ko ci yàlla subhaanahu wa taala te boroom xam-xamu usuul yi dañuy wax ne al amru ndigal bu ñëwee moo xam yàllaa ko joxe wala yenente bi alayhi salaatu salaam su boobaa ndigal loolu dafay war kon li ndigal la lu jógee ci yàlla jëm ci ñan jëm ci jaam yi nga xamante ni dañoo gëm ñu damm seeni gis ci li nga xam ne yàlla daf koo araamal ci ñoom bu ñu xool lu dul yàlla daganal ñu xool ko waaye nañuy damm seeni gis ci lépp loo xamante ni dafa xaraam nee na bu fekkente ni dafa dëppoo nag walla nga xool rekk siggi rekk xool daal di yem ci lu xaraam nee na su boobaa tournel li nga xamante ni moom mooy sa gis gestul su ko defee nee na nga def ko ci lu gaaw ma taxal imaamu muslim génnee na benn xadis jëlee ko ci jarir ibnu abdallah radiallahu anhu mu ne laaj naa yenent bi alayhi salaatu ci lan mooy xool bu bette moo digal ma naa tourne li nga xamante ni moom mooy sama gis kon nit ki bu fekkente ni nekk na ci mbir wala muy dox ba mu yàgg siggi yem ci lu xaraam loolu moom la ñuy tuddee xool bu ko bett su boobaa ne wëlbati li nga xamante ni moom mooy bëtam comme ni nga xamante ni moom la ko al imaamu bi waxee nee na su fekkente ni nit ki dafa jékki-jékki ba mu yàgg am lu ko arive ci kanamam muy lu xaraama xool nee na su boobaa ne wëlbati gisam ci lu gaaw su ko defee du am benn bàkkaar waaye bu fekkente ni nag dal nay xool gis ne lii lu xaraam la mu war a wëlbati bëtam mu continuer di xool su boobaa loolu da nga ciy jëlee li nga xamante ni moom mooy bàkkaar ñaareel bi mbokk yi damm sa gis dafa bokk ci mbir yi nga xamante ni ku ko def yenent bi alayhi salaatu wasalaam daf laa garantil aljanna al imaamu ahmad génne na xadiis ci sanad boo xamante ni xasan la ñu jëlee ko ci ubaadat ibnu saamit radiallahu anhu wa ardaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na garantil leen ma juróom benn yi ma garantil leen aljanna ba ca jiitu mu ne su ngeen di wax na wax ji doon dëgg su ngeen di wax na wax ji doon dëgg ana tey ñaata ci ñun ñooy wax wax yi juuyoo ak li nga xamante ni wala jëf ji juuyoo ak li ñu wax ñaata ci ñun tey ñoo dem ba kenn gëmatu leen ci wax ndax lan ndax ñàkk respecté sa kàddu ñàkk respecté sa lan sa kàddu kon jullit dafa war a nekk koo xamante ni dafay war a respecté kàddoom lépp lu mu wax fas ke dina ko def ñaareel ba mu ne na ngeen di matal li nga xamante ni moom mooy kóllëre su ngeen kóllërawante ak nit wala ngeen joxante rendez su boobaa rendez-vous boobu na ko matal bul bokk ci ñi mukk ci ñi nga xamante ni dañuy foose rendez-vous ñetteel ba mu ne suñ leen wóoloo ba dénk leen mbir wala ñu wóolu leen ba jox leen secret wala ñu wóolu leen ba am confiance bu ñu leen jox nee na su boobaa confiance boobu na ngeen ko gañe na ngeen fexe ba confiance boobu ki leen jox confiance bi bu mu bu mu am lu muy rëccu ci confiance boobu nga xamante ni joxoon na la ko ba ca tegu mu ne na ngeen wattu li nga xamante ni moom mooy seeni pëy muy góor ñi muy jigéen ñi kenn ku ci nekk na wattu sa pëy ba bañ cee def loo xamante ni lu neexul yàlla te loolu moom mooy njaaloo wala ngay nekk lesbienne muy góor jigéen waaye mu ne wax raddu absaarakum na ngeen di damm li nga xamante ni mooy seeni gis juróom-benneel bi mu ne wa kuffu aydiyakum nangeen di téye li nga xamante ni moom mooy seeni loxo bu leen ci lor seeni mbokk jullit ci jëf kon juróom-benn yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku ko garantil mu garantil la aljanna te ci biir juróom-benn yooyu gis nañ ci li nga xamante ni mooy xuddu absaarakum mooy sàjj leen damm leen li nga xamante ni moom mooy seeni gis ñetteel ba mooy mbokk yi damm sa gis dafa bokk ci xaq yoon yi xam ngeen ne ñi nga xamante ni dañoo jël yoon yi def ko ay garam place wala ñu jël garam place def ko ci yoon yi dafa bokk ci xaq yoon yi mooy nga damm sa gis nekkul ne boo toogee ci mbedd mi lu la romb rek nga xool waaye maal asaf nag ñun faalewuñ ci loolu tey balaa ñuy mën a jëw rek dañoo toog ci mbedd mi ku romb rek ñu daal di wax ci deram loolu juyoo ak njàngale lislaam la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xamante ni imaamul buxaari muslim génnee nañ ko abu said alxudri solo xadis bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewoon nañu iyaakum wal juluusu ala turuqaat maa ngi leen di moytandekuloo ngeen di toog ci yoon yi saxaaba yi na ko yow yonent yàlla bi ñun dey mënuñoo ñàkk a toog ci yoon yi ndaxte mooy suñu garam place yi ñu toog di waxtaan mu ne fa ida abaytum ila al majlis fa aatu fa aatu tariqa mu ne bu ngeen demee ba mun leen a ñàkk a toog ci yoon yi su boobaa na ngeen jox yoon yi xaqam qaalu wama wa ma xaqu tariq ya rasul allah saxaaba yi ne ko waaw yoon yi ban xaq lañu am mu ne raddul basar bokk na ba ca jiitu mooy na ngeen di damm li nga xamante ni moom mooy seeni gis kon ki toog ci mbedd mi moo xam ci buntu këram la génnee séesam toog wala ci garam place la toog ci mbedd mi du lu ko romb rek mu daal di yëkkati bëtam daal di xool déedéet dangaa war a sàjj li nga xamante ni moom mooy say xef ñaareel bi mu ne wa kafful aza bokk na ci xaq yoon mooy nga fekk lor nga fekk lor soo gisee ku bëgg a dem ci lu bon nga daal di koy lan nga daal di koy fegal lor googu waaye itam lor bu mu jógee ko ci yow itam jëm ci ñi nga xamante ni ñooy romb ci ñi nga xamante ni ñoom mooy mbedd bi ñetteel bi mu ne wa raddu salaam boo toogee ci mbedd mi bokk na ci ay xaq yoon yi nga fay ku la nuyoo ba ca tegu mu ne na ngay digle lu baax di tere lu bon kon ci xadis boobu gis nañ ci ne dafa bokk ci xàq yoon mooy damm li nga xamante ni moom mooy sa gis ñeenteel ba mbokk yi mooy damm sa gis dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy wasaaya yenent bi alayhi salaatu wasalaam yi gën a mag muy ndénkaaneem yi gën a mag al imaamu abu daawuda génne na xadis jëlee ko ci burayda mu ne yonent bi alayhi salaam wasalaam waxoon na ali ibn abi talib ne ko yow aliyin bul toftal xool ci kaw xool mooy bul siggi yam ci lu xaraam au lieu nga tourner sa bët nga continuer waat di ko xool mu ne fa inna laka al ula waaye wala walaysat laka al axira mu ne ko xool bu njëkk bi nag moom yaa ko moom parce que defoo ko ci sa ci sa bëgg lu la arrivé la waaye xool ba ca tegu nag moomoo ko kon su boobaa sàjjil sa xef waaye nag bul dégg ne xool bu njëkk bi yaa ko moom rek nga siggi yam ci lu xaraam war a tourner ngay xulli rek ñuy wax nga ne xool bu njëkk bi maa moom déedéet loolu su boobaa yaa ngi def bàkkaar kon lakal uulaa xool bu njëkk bi yaa ko moom mooy bi sa bët siggee yem ci loo xamante ni lu xaraam la xool boobu di xool bu bi nga ko njëkk a gis loolu duñ la ci bindal bàkkaar su boobaa da ngay tourner li nga xamante ni moom mooy sa gis ci xadis bu imaamul muslim génnee ba tey itam abu saïd nettali ko mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na góor bu mu xool li nga xamante ni moom mooy awra yu góor waaye itam jigéen bu mu xool li nga xamante ni moom mooy awra li nga xamante ni moom mooy awra yu jigéen waaye nag bu fekkente ni am na darura bu tax kon su boobaa loolu boroom xam-xam yi nee nañ mun nañ koo maye waaye bu fekkente ni amul benn darura bu koy waral su boobaa góor warta xool awray moroomi góoram jigéen itam warta xool li nga xamante ni moom mooy awray moroomi góoram juróomeel ba mbokk yi mooy damm sa gis moo gën a tar li nga xamante ni moom mooy wattu sa làmmeñ boo demee ci ibnu abi dunya ci téeréem boobu ñuy wax alwara jëlee na fa benn athar ci abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu wa ardah abdullah ibnu mas'ud nee wattu sa gis ba doo ci xool lu xaraam nee na moo gën a tar moo gën a jafe li nga xamante ni moom mooy wattu sa làmmeñ rawatina jamono jii nag nga xamante ni moom lañuy ñuy dund rawatina jamono ji nga xamante ni moom la ñuy internet ak réseaux sociaux yeeg youtube beeg lu ne nga ciy gis waaw su ko defee bu la yàlla dimbalewul dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man ngaa yendu ba jant bi so sa bët yi doo ci xool li nga xamante ni mooy lu neex yàlla sa tabaraka wa taala mbokk yi ñaareel ba mooy ana yan njariñ moo nekk ci li nga xamante ni moom mooy damm sa gis bokk na ca njariñ yooyu mooy yàlla daf lay defal li ñuy tuddee xalaawatul imaan mooy gëm yàlla gu neex goo xamante ni dafay am bànneex ki nga xamante ni dafay sàjj gisam dafay damm ay gisam du ci xool yàlla xaraamal bokk na ci njariñ yi ko yàlla di defal fii ci àdduna mooy loolu daf koy jural xol boo xamante ni wala ngëm yàlla goo xamante ni dafa neex ngëm yàlla goo xamante ni buy jaamu yàlla dafay yëg cof ak jaamu yàlla gi ci biir xol bi xol bi dafay sedd guyi su ko defee loolu moo koy poussé lépp loo xamante ni lu yàlla xaraamal la rek dangay gis ne da koy bàyyi ndax xalaawatul imaan bi nga xamante ni moo nekk ci xol bi te loolu mu bàyyi muy xool lu yàlla daf ko koy remplacer loo xamante ni moom moo ko gën ñaareel ba ci njariñ yi mooy yàlla tabaraka wa taala daf lay defal leeru xool ci sa xol bi yàlla tabaraka wa taala da ciy def li nga xamante ni moom mooy leer bu ngeen xoolee aaya bi nekk ci suratu nuur bi ko suñu borom tabaraka wa taala indee ba pare aaya bi mu ci teg mooy allahu nuuru samawati wal ard aaya bee di wax ci damm ay gis sàjj say xef dafa jeex rek yàlla teg ci allahu nuuru samawati wal ard kon loolu di wane ne ki nga xamante ni dafay sàjj xefam dafay damm ay gisam kookee suñu borom tabaraka wa taala daf koy defal li nga xamante ni moom mooy leeru xol ñetteel ba mooy yàlla da koy remplacer leer goo xamante ni da koy yëg ci li nga xamante ni moom mooy xol bi nag ñeenteel ba mooy loolu topp yàlla la tabaraka wa taala ak yenent bi alayhi salaatu salaam te topp yàlla topp yenent bi kat mooy jur mbëggeel goo xamante ni dafay jóge ko ci yàlla ñëw ci yow jaam bi topp yenent bi alayhi salaatu wassalaam dafay jur mbëggeel gu jóge ko ci yàlla ñëw ci jaam bi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah su ngeen ne bëgg ngeen yàlla topp leen na man muhammad su ngeen ma toppee yàlla dina leen bëgg kon ki nga xamante ni dafay sàjj xefam dafay damm gisam du ci xool yàlla xaraamal bokk na ci njëriñ yi mu koy jural mooy da koy topp yàlla te topp yàlla googu da koy yóbbu ci suñu borom tabaraka wa taala daal di koy bëgg mbëggeel googu yóbbu ko ba aljanna juróomeel ba mooy daf koy ñoŋeel nag daf koy ñoŋeel ba du tàbbi ci li nga xamante ni moom mooy lu xaraam ndax xam ngeen ne ñaareel njaaloo walla lu dul njaaloo bu doxee ci diggante góor ak jigéen commencement ba mooy xool moo tax woykat ba waxoon ne kullul xawaadisi mabda'uha min an nazari waaw kullul xawaadisi mabda'uha min an nazari nee njaaxum yëpp lay source bi la ko jur moo ngi jógee koo ci xool beneen woykat waxoon na ne nadratun fa btisaamun fa salaamun fa kalaamun summa mawcidun fa liqaawun nee da ngay xool xool bi du la doy nga muuñ soo muuñee ba mu yàgg nga nuyoo boo nuyee ba mu yàgg nga wax aloo booy na def ngeen waxante joxante kàddu su ngeen joxante kàddu waxtaan juddu bu waxtaan juddoo dégg nga joxante rendez-vous daje bu ngeen joxante rendez-vous nag saytaane moo leen di ñetteel kon bokk na ci njëriñ yi nekk ci sàjj say xef mooy daf lay musal ci loolu ba doo tàbbi ci li nga xamante ni moom la yàlla tabaraka wa taala xaraamal juróom-benneel mooy dafay aar société bi nag ci li nga xamante ni moom mooy tasaaroog njaaloo tey xam ngeen ne njaaloo gu bari gi li ko tasaare lépp bokk na ci xool yi nga xamante ni tey waroon nañ koo sàjj suñuy xef ci jigéen ñi te defuñ ko waaye jigéen ñi itam kenn demul ñu des solootuñ colin yu baax génn ci mbedd mi sol solin wala neex sa dënn nekk ci biti sa wen nekk ci biti say pooj nekk ci biti loolu jigéen daf cee war a bàyyi xel bu baax a baax a baax jigéen dafay sol li nga xamante ni moom mooy colk ak lislaam góor yi nga xamante ni ñoo ngi lay xool di ci jëlee bàkkaar yow itam yaa ngi ciy jëlee bàkkaar inna alladina fatanu almuminina walmuminat summa lam yatuubu fa lahum adabu jahannam wa lahum adabu alxariq te loolu fitnaal góor ñi la loolu itam jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ci seeni colk defaraat coli ñi bu baax a baax a baax a baax a baax su ko defee mbokk yi ñetteelu tomb bi mooy ana salafu saalix nan lañ doon dundee li nga xamante ni moom mooy dam musa gis abdullah ibnu abi zuhayl nee na benn bis abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu wa ardah dafa amoon ku mu doon seeti ku feebar bi mu demee mu àndak aw nit nit ñooñu mu àndal nag bi ñu ñëwee ba ci kër ki feebar ñu ko doon seet si am na sa benn soxna ju fa nekk seen soxna su fa nekk ci mbooloo mi abdullah ibnu mas'ud àndal nee na am ci koo xamante nii moo ngi xool ndaw si rek di ko xool rek nee na Abdullah ibn lan la ko wax yow de sa bët bi buñ ko fuqoon mooy gën ci yow bu ñu foqoon sa bët bi luqati ko daal moom mooy gën ci yow nga jël sa xool bi rek fixé ko ci li nga xamante ni moom mooy ndaw si kon asalafu saalix dañoo soññee ci li nga xamante ni moom mooy nit ki sàjj li nga xamante ni moom mooy xefam jële nañ ci abu hakim abu hakim nee na xasaan ibnu abi sanaan benn bis bisub iid la woon moo xam korite la wala tabaski nee na dafa génn dem ci julleekaay ba bi mu julli jee ba ñëw xam naa soxna si nekk soxna soo xamante ni soxna su fiir la mu ne ko waaw ñaata jigéen yu rafet nga xool bi nga génnee ci kër gi ba léegi nee na borom kër gi tontuwu ko nee na mu rafete kàddu yi ba mu bari bi wax ji baree xam naa mu soof borom kër gi rek mu ne ko taskade day ñeel na la man dey bi ma génnee ba léegi xooluma lu dul sama baaraamu dey bii allahu ko bi ma génnee jëm ci julleekaay ba ba ni may tourné xooluma lu dul sama baaraam day bii te kon kon mooy dafa wàcce ay bëtam ba ca julleekaay ba mu julli wàccewaat ay bëtam xool ci suuf delsiwaat ba ci kër gi jëlee nañ ci waqi ibnul jaraax mu ne benn bis génn nañ ànd ak sufyaan al jëm ci julleekaay ba kori wala tabaski lum lan la wax mu ne inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina gaddu absaarina mu ne tey day li ñu li ñuy njëkk a def bu ñu génnee suñu kër yi tey jëm ci julleekaay ba mooy nañu sàjj li nga xamante ni mooy suñuy xef mooy nañu damm li nga xamante ni moom mooy suñuy gis maaruuf moom dafa doon wax sax ne dee leen sàjj seeni xef dee leen damm seeni gis donte ne gàtt la donte ne gàtt la mooy xar wala bëy bu jigéen la sax nee na su boobaa bu la rombee sàjj li nga xamante ni moom mooy sa xef loolu da koo wax rek ngir mooy tandekuloo doomu aadama yi li nga xamante ni moom mooy fitna rawatina jamono ji nga xamante ni moom la ñuy dund jigéen ñi solatuñ lu baax defatuñ lu baax wacc seen yaram yi ci biti loolu laa sakkane jamono ji moo gën a nekk fuuf jamono yi fitna ka jamono yi nga xamante ni moom la saxaaba yi doon dund ak li nga xamante ni moom mooy euh, attaabiina yi moo tax leen ci salaf dañuy wax ne man xafida basarahu awrasahu llahu nuuran fi basiratihi aw fi qalbi képp koo xamante ni dangaa wattu li nga xamante ni moom mooy sa xool sa gis say bët nga wattu ko ba doo ci xool yàlla xaraamal nee na yàlla dina la donnloo aw leer goo xamante ni ci sa basira lay nekk walla mu nekk ci li nga xamante ni moom mooy sa xol yàlla da defal leeru gis-gis da mën a am gis-gis ci texte moo xam aaya moo xam xadiis yi la ciy mën a am basira waaw ndax da nga ciy mën a am li nga xamante ni moom mooy gis-gis su ko defee yàlla itam daf lay donnloo leer goo xamante ni da koy def ci li nga xamante ni moom mooy sa xol bi kon mbokki jullit ñi nañu gën a sàjjiwaat suñuy xef nañu gën a dammaat suñuy gis rawatina jamono jii nga xamante ni moom la ñuy dund mu nekk jamonoy fitna jamonoy internet jamono jamonoy youtube nga xam ne mën ngaa xëy ba jant bi sox te sa téléphone bii di dugg ci youtube di dugg facebook fu ne nga fay gis lu nekk loolu su boobaa nañu xam ne na nga war a sàjjee say xef ci mbedd mi noonu nga war a sàjjee say xef ci youtube ba noonu nga ko war a sàjjee ca whatsapp ba ca la nga xamante ni moom mooy mboolem wasaa'il yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo yàlla nañu yàlla tabaraka wa taala dimbale ci loolu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله